mbokki Sénégal mbokki réew mi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 saraax la ñuy def ci xew-xewu lamb tey fekk sunu lamb ca xët wu njëkk wa diggante rëg-rëg ak Alain Ngalani seen combat MMA ba ca Singapour le journal ba xëy def mooy fësal nataalu ñaari mbëri ku ci nekk mu fësal ci say at bu dee la Camerounais Alain Ngalani la mu xamle mooy 46 ans la am kii di rëg-rëg moo gën a nekk xale 27 ans la am foofee la nekkoon sensu Alain Ngalani mooy expérience ba def différence waaye foofee la jeunesse de rëg-rëg moo def différence Juan ba nu ko laajee ci bile combat la mu xamle mooy combat bu yomb combat bi noonee la demee la mu waxoon ne combat bu yomb lay nekk ci rëg-rëg noonee la demee la mu waxoon ne day yomb ci rëg-rëg noonee la demee rax ca doole ne bu ma sañoon Sénégal am ay rëg-rëg yu bari loolee nag lam ca jublu mooy melokaan baak njàmbaar gaak doole ja nekk ca moom fa mu daanelee ay kàddoom nag mooy Alain Ngalani n'est pas vraiment dangereux na mu ko analyser ne combat ba demee boo ko gisee da jàpp ne xuwaan seetkat la bu dee seen see yat yet ma loo wax gis nañu ko ja bu sukkandikoo ci site internet bii di wif moom la mu xamle mooy rëg-rëg ci diirub cinq minutes la jàppanteeg Alain Ngalani daadu koy daan par kaaw combat ba mettiwul woon ci rëg-rëg ndax moo gën a féete xale moo gën a pare bu nu jógee ca Singapour dañuy jàll ca Mbuur ma journal sunu lamb xëy fësal écurie fa nekk lam ca toftal mooy sampub laajam ba xam mbër yooyee nekk ca Mbuur nekk ay ténor kañ la booloo écurie bu dee moom mooy chef de filu écurie Mbour bombardier Pakala mooy chef de filu écurie Mbour montagne assurance mooy chef de filu écurie Mbour tefes bu dee Jordan moom mu nga ca Mbour mbooloo yi la journal ba di laaj ba xam kañ la booloo nekk benn bombardier ak assurance ak Jordan ak Pakala kañ la booloo nekk benn li ni am na ñenn ci ñu nekk Mbour ñu jàpp ne mënatul nekk bu dee assurance bu Mbour tefes la mu xam le mooy ay jamono lu mënoon nekk la waaye léegi nañu xam ne béy wéy na mbuus bombardier Jordan moom ne ca tonn ne da di yoon sax joxe nañ seenub xalaat xalaat ba mooy dañoo war ubbi lamb ji ñu bëri fa ñu doon déposé seeni affiliation ñoom école yaak écurie ya la ñu seenub xalaat waxit seeni ambition naka la fa seene jàppalee lamb fa ñuy jeexale mooy ca troisième confrontation ba diggante Eumeu Sène ak Lac de Guiers beneenub technicien bu ñuy wax mbay ñi ngi moo wax ci bile combat atu yaak foori mbër ya bu dee ci wàllu technique la mbay ñi nga xam le ma Sène mbër mu technique la waaye côté droit la mëne bu dee Lac de Guiers moom technicité am foo ko natt weesu na ko bu dee ci wàllu force la mu xam ne mooy Eumeu Sène est moyen fort physiquement foofee lay xalaatam mooy Lac de Guiers moo gën a fort Eumeu Sène ci wàllu physique bu dee ci wàllu staff la mu xam ne mooy Eumeu Sène am na encadrement waaye Lac de Guiers ay mag a ko encadré bu dee ci wàllu mystique la mu xam ne mooy Eumeu nag la dëgër ku ci nekk say for mbay ñi ngi ñëw na ci ci ni gën a yaatoo ci journal bi ku ci nekk la ci am cay atu fësal na ko jërë ngeen jëf mbokk li moo li gën a fës ci tu yéene kaay bi ñu jox li daje ba ëllëg incha allah